encore une fois pour alerter patriotes C'est liste ñuy wax dañ ko def ma liste amul xam nga am instant yi ak euh, président Ousmane Sonko Sénégal bi ñun dañ ko c'est-à-dire que Macky Sall installer un état profond dafa installer un état profond au niveau du Sénégal xamna rek ne discours bi président Sonko def dimanche 9 bi passé motax ñenn di révolté wu léegi li am ba des mooy moo tax ñenn ñi di révolté wu xam naa loolu moo tax rek ñuy jéem a fëyu fëyu ndaw yi mooy ñuy def nii rek parce que raxas bi moo setagul te raxas bi dina jël temps léegi li mën a am li liñ mën a def ñun bokk patriote mooy ñun nañ jàppale suñu président Bassirou Diomaye ak Ousmane Sonko ñun tamit jël suñuy matuwaay jël suñuy matuwaay parce que euh, par exemple boo jëlee euh, exemple aéroport bi ak ku manti doon gis nga nit ku la arrêté ti ci loo xamante ne nee na da nga am loo def yow am nga droit en tant que citoyen nga laaj ko matriculam ba pare laaj ko turam ak santam ñi nga xamante ne ñooy def excès de zèle instant yi nekk ci état profond bu Macky Sall boobu nga xam ne Macky da ko installé état profond mooy loo xam ne kenn du ko gis cest à dafa installé ay nit un peu partout au Sénégal léegi raxas bi balaa moo set foog ñu dindi ñoo ñëpp ñu ngi aéroport ñu ngi fu ne ñu ngi fune ñooñu nag ñooy toog léeg di fippu di jéem a indil problème euh, peuple Sénégal bi ak patriote léegi ñun patriote yi ordinaire yi nga xamante ñooy citoyens yi nañ jël suñu matuwaay képp koo xamante ne yaa ngi fi nga nekk ñaa ngi fa nekk te defoo luy yoon nañ nañ xam lan mooy suñu àq suñu yelleef par exemple policier bu la jàppee da nga war a xam policier bi kan la il l'obligation de s'identifier même aéroport ak fu manti doon bu ñu identifier ñoo ñëpp seen tur yi ñu génne leen vilipande leen ci ci biti bañ xam ñoom ñooy ñan parce que ñooñu mooy ñi nga xamante ne ba léegi ñu ngi ci régime yi ab euh, Macky sàll bi mooy état profond boobu di jéem a def ay coups te su ma doon ñoom parce que muusuñ parce que buñ muusoon dinañ dinañ dem seen game comme ni ko président Ousmane ko waxee yow yaa ngi sàcc lu ba rey ay ni def lu nekk nga waroon teg toog instant yi lem say geen nga ne da ngay jéem a ut nooy feyoo comme ni ko Mollah Morgan di waxee instant yi dañoo nekk di def seen i affaire ci suuf lépp pour yàqal nguur gi léegi us président Ousmane Sonko ak président Diomaye ñoom ñu ngi def seen liggéey ci kaw ñu ngi ñu ngi di dindi di nommé di dindi di nome incha allah ñun ñi patriote tamit nañu def suñu liggéey suñ kemt lay mooy lépp lu dul droit buñ ko nangu buñ ko nangu yuux ko ba ci kaw bu jógee ci kaw rek day réglé wu comme yow ni nga ko defee ni Cheikh Anne day réglé wu donc loolu buñ ci buñ ci reculer d'un iota loolu moo war a doon instant yi suñu suñu suñu suñu suñu wargal suñu suñu voilà voilà exactement loolu lañ wara def instant yi dafa nek état profond bo xamanteni té toutes les façons dinañ len commencer seppi ñom ñëpp procureur yeeg loolu mais loolu yëpp dina jël temps en attendant patriote bu ci nek bu ci nek lepp lo gis du yoon dénoncé ko ci kaw xamal lan mooy sa droit ak sa ak sa àq sa yelleef nga si ci kaw incha allah bu ci nit ñu jotee ki nga xamante ne moo nekkoon di def naka si du noonu di la jéem a di la jéem a néewal doole dinañ ko sanctionné incha allah te leen li ma ciy teg pour tëj vidéo bi mooy yéen gars yi nga xamante ne yéen a nekk ci état profond bi fi Macky saali tegoon bu leen yaakaar ne da ngeen yéen ñi am responsabilité yu tuuti yi bu leen yaakaar ne kenn xamul nit ñi xamuñu xamuñu leen a nit ñi xam nañ leen te yéen ñi nga xamante ne yor yenn responsabilité yu tuuti te bokk ci état profond boobu jàpp on peut vous sanctionner on peut vous sanctionner suñ pas ci sen njiit yi ñi sacc xaalis ñi loubal euh, procureur rek yoy dañuy ñëw tamit ci agent simple parce qu'on a les moyens de vous sanctionner jusqu'à jusqu'à jusqu'à même vous radier radiation sax mun ngeen ko ci am donc ku ci nekk lemal sa geen nga toog appliquer la loi ndax liste bi nga xamante ne moom la Antoine Diome yóbboon yóbboon euh, aéroport ñëpp xam nañ ne c'est illégal donc en tant que agent de l'État yow loolu waroo ko appliquer parce que c'est c'est illégal on n'est pas obligé d'exécuter un ordre qui est illégal yéen ñëpp xam ngeen ko donc soo leen ko defee rek yéen ko yéen ko bu ne vous êtes dans l'anonymat vous êtes euh, au bas de l'échelle que mënuñoo dem ba xam seen responsabilité yéen ñi bokkoon ci état profond Macky donc régler leen ngeen dawal yoon te xam ñu ngi kaw